salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar yu mujj jëm ci tàggat yaram waaye laata loolee kuy gan ci page bi ñoo ngi koy ñaan mu abonné bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek dina bokk ci ñu koy njëkk a jot ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Youssouf sabali bu ñu sukkandikoo ci stade gone gii nekk ci Betis Séville kii di Aliou Cissé convoqué ne ko te convocation boobee sax jot na ci gone gi nag kon dina ñëw football ñaari match yi nga xamante ni moom la Sénégal wala football ak Égypte loole nag mi ngi jëm ci barrage coupe du monde ñaari match yooyee yépp nag ci weeru mars wi ñu nekk la match aller ba la cinq la match retour ba la 29 la fii ci Ndakaaru kon nag kii di Youssouf Sabali dina ñëw bokk ca ñaari match yooyee ci fàttali kii di Youssouf Sabali daan na ñëw ci équipe nationale bu Sénégal kan bii weesu li tax gisu leen ko moo di képp moo tax ñëwul woon te jamono jii nag wér na ma ngay doxal ca Betis Séville gone gi nag latral droit la nekkul latral gauche naam bi mu nekkee équipe nationale daan nañ ko football lo latral gos waaye dañ ko doon modifier képp. jamono jii fële ca Betis Séville gone gi latral droite lay football fële tamit ca Bordeaux jamono jam fay nekk latral droite la fa doon football. kon gone gi latéral droite la bu ñëwee nag moom ak Bouna Sarr ñooy wujje ca wetu ndeyjoor ga ñoom ñaari gone yooyee mbokk internet yi maa ngi samp foofu ab laaj Youssouf sabali bu ñëwee fekkante fi ak kii di Bouna Sarr ñaari mat ci Sénégal war a am aller ak ñoom ñaar kan la ci Aliou Cissé war a départ le titulaire loolee maa ngi leen koy laaj ci commentaire yi ñu jógee ci Youssouf Sabaly jël kii di Iñaki Williams moom nag dafa séq waxtaan ak groupe de presse bi tudd Kouassi nekk ci réewu gana te yemul rek ci gana ndax mi ngi ci réewu Afrique yu bari ñoom nag dañu séq waxtaan ba ñëw ci équipe national ñu laaj ko ne ko ndax yow équipe national bu gana bu ñu la woowoon di nga ñëw football mu ne ah foofu nag dinaa fi taxaw li ko waral moo di kat man samay waajur yi gana la ñu dëkk kon nag dinaa fonk ñooñee ndax samay mbokk la ñu waaye man Espagne laa yaroo fi jàngee fi ba noppi màggee fi kon duma leen wor man équipe nationale bu Espagne ci lay football ñii di waa Gana nag respecté naa leen lool ndax samay woy jur fa la ñu dëkk ci fàttali moom mi yaayam ak pàppam yëpp Gana la ñu dëkk loolee moo tax journaliste yi laaj ko loolu kii di Iñaki Williams nag bu bëggoon football ca Gana loolee FIFA du ko ko aaye li ko waral moo di kat benn match kepp la football ca équipe nationale bu Espagne te FIFA may na la bu fekkee benn match nga football te nekkul mondial nekkul coupe d'Afrique nekkul euro mën ngaa soppi xar kanam dem ci équipe national bu la neex te kii di Iñaki Williams footballul Europe ak Espagne footballul mondial ak Espagne bu ko neexoon tey jii mu dem ci équipe nationale bu Ghana. ñu jugee ci Iñaki Williams dem ci choc bi ñëpp di xaar di dox ci diggante Real de Madrid ak ñii di waa Paris. match boobee nag Marca la mu xam le stade du Real de Madrid boobu di Santiago Bernabéu bi nga xamante ni dañ koy deferaat dinañu ko ubbi nag duy ca ay nit lu ci toll ak soixante-deux mille personnes juróom benn fukki junni nit ak ñaar ñu ngi leen di xaar ca stade boobee ngir ñuy yëngal gësëm affaire ya tàng jër ngir waa Real de Madrid mën a am ndam ci kaw Paris. match boobee du ñu ca génn ndax Xavi mi tàggat ñii di waa Barcelone tey jii ba muy def conférence de presse di jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal moom match bi mu am suuf suba war a dox ci diggante Barcelone ak Galatasaray bu mbay jaay loolee mi ngi jëm ci huitième de finale Ligue Europa waaye kii di Xavi nag ci match tey bi la ñu ko laaj muy ci diggante Real ak Paris journaliste yi ne ko ndax di nga seetaan match boobee mu ne dina ko seetaan kay ñu ne ko koo faral mu ne a ah Neymar ak Messi de samay xarit lañu suñu gañee dina ma neex lool te maa ngi leen di ñaanal loolee nag du samay kàddu kàddu safi la may tàggat waa Barcelone Barcelone googee duñu ko génn bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano moom la mu xamle moo di ñii di waa Barcelone dugg nañu ca kursu ba ngir jënd doomu Brésil bii di Rafinha nekk ca Leeds United gone gi nag waa Bayern na tamit dañu koo bëgg kon yëf du yomb nekk ca Leeds United nañuy doxee yéex na lool te ñoom mën nañoo wàcc dem ca deuxième division te xale bi kat buggul wàcc dem deuxième division moo tax bu saison bi jeexee mën naa soppi xar kanam moo tax Barcelone dugg na ca mbir ma ngir jënd ko. ñoo ngi Barcelone ba léegi bu ñu sukkandikoo ci sport moom la mu xam xamle moo di ñii di waa Barcelone jamono jii seen bëgg-bëgg moo di seen défenseur bi dëkk ca Uruguay di Araujo ñu yokkal ko contrat am. waaye gone gi nag jubawul ak waa Barcelone ndax waa Barcelone dañ ne ko bu saison bi jeexee di nga am 3 millions d'euros moom mu ne loolee dafa ndaw su ngeen bëggee ma yokk sama contrat daal li ngeen di fay sama morom yii nekk fi loolee laa bëgg ngeen di ma fay ku ci mel ni Ferran Torres ak Pedri ak kii di Ansu ndax ëpp ñu ma njëriñ ci terrain bi ñoom dañuy dugali rek may kar su ngeen ma fayee lu tolloog li ngeen di fay gone yooyee rek dinaa yokk sama contrat ñu jóge ci waa Barcelone dem ci waa Chelsea ñoom nag ki leen di tàggat di Thomas Tuchel tey dafa yëkkati kàddu wax ci kii di Andrea Christensen moom nag défenseur la fële ca Chelsea waaye contrat am day waaj a jeex ba ay rumeur di jub sax ne moom mii kat daanaka signé na fële ca Barcelone loolee nag Thomas Tuchel ñëw na ci nee na ah maa ngi koy dégg de waaye nag bu demee du ñu neex gone gi nag jàpp naa ne dina jóge ci club bi waaye bu demee tamit loolee duma ma gënal ndax gone gi taxawaayam ci Chelsea am na solo lool la mu xamle daal moo di ñi ëmb club bi sumboon nañu waxtaan ak gone gi waaye jubo amul ci seen diggante man daal li ma jàpp mooy gone gi du des ci club bi kon nag kii di Thomas Tuchel ni mu waxee ku ko dégg rek xam ne kii di Christensen day jógee Chelsea fa muy dem nag leeralu ko waaye daal Barcelone jamono jii moo gën a taxaw ngir jël doomu Danemark bi gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah